Modou lu mu baax baax baax ñi mu àndal ñu jàppale ko ci bis ba bis bi mel nii ñooñu yeyoo nañ cant te wax dëgg yàlla loolu buñ ci tuddee ñu fekk mbay jéen tudd ci jëwriñ ji nga xam ne ñoom lañu fekk fii yëpp rek war nañoo mën a sant bu baax te xam ne wax dëgg rafetal nañ sëriñ bi nag comme ni nga ko waxee noonu sëriñ Bay loolu rek la noonu rek demee ndax koo xam ne amoo lu dul sëriñ bi. fu ci waay jàpp ci jàpp jàpp sëñ bi day wax ne jàppul sëñ Tuubaa sëñ Moussa day day wax ne moom nga jàpp ndax daamu lu sëñ Tuubaa te ba mu ne ba mu jàppee sëñ Tuubaa te jàpp ko ni mu koy war a jàppee taalibe yi moom kenn moom leen sëñ Tuubaa leen moom. taalibe yëpp d'accord xam ne fi mu teg sëñ Tuubaa foofu rek la ko war a teg comme ni nga ko waxee tamit ci diggante mag ki xam ni moo fi nekkal sëñ Tuubaa ñaan jotaay bi yàgg ngërëm li nga xam ne moom la koy gërëm li ci ëpp ab liggéey rek a tax mu koy gërëm ndax du du ko jur di ko gërëm. du da koo jege ba tax mu koy gërëm waaye yaakaar ji mam ci moom dafa tënku ci liggéeyal Sëñ Tuubaa mu mu gën a dollee ko ci nag pas-pas bi mu amoon nag diggante mag moom te xam ne mag ñu baax ñiñ topp ñëpp li ñu am ci àdduna yëpp am ko ci yoonu murit pas-pas bu rafet rek mu leen ko may euh, dañuy wax ne sëñ Seybra mos nit mos naa ñëw Sëñ Tuubaa di ko wax di ko nettali ni mu ko gëmee ni mu ko toppee a ni mu ko bëggee waaye bi koy Sëñ Tuubaa tontu ka koy wax da ko wax ne ko Ibra Fall bi ma ko xamee ba léegi noonu rek la mel du soppeeku mukk ngir ngir topp gum ko topp ngir bëgg gum ko bëgg at jox ko li nga xam ne ni moom la ko yàlla digal mu jox ko ko moo tax sëñ Tuubaa ne woon Ibra bi ma ko xamee ba léegi du soppeeku ni mu la mel kon nag ku mu mën a doon fexe ba jàpp sëriñ bi te bañ koo booleeg dara loolu loolu loolu day defar sa fii defar sa fee jëm fi ñu toll nag tembe sëriñ sëpp seen benn seen yitte yëpp mooy fexe ba yeesalaat pas-pas yi si sëñ Tuubaa fexe ba jàpp sëñ Tuubaa bañ koo booleeg dara ñàkk jàpp sëñ Tuubaa nag bañ koo booleeg dara dañoo toll ci jamono ju nit ñi war a leeralee loolu parce que yow bu fekkee da ngaa xëy ci di xëy ci jàpp sëñ Tuubaa am ñoo xam ne dañoo xëy ci pour yow sa digganteeg sëñ Tuubaa ñu yàq ko te niñ koy yàqee du leen lu fexe ba pas-pas bi bi mag ñi amoon teg sëñ Tuubaa fi ñu ko war teg ñu fexe ba ba ba ba lu ci bari ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu am gis-gis boo xam ne ni yow mi koy jàpp di nga jàpp ne yow ki ngay jàpp mën nga ko boole ndax sëñ Tuubaa ak rek boo loo ci boole rek mu yàqu kon sëñ bi mu ngi leen dénk loolu baax di ko dénk boppam ndax loolu ci la ne fexe ba kenn ku ci nekk ci ñun ñii taalibe yi fexe ba jàpp sëñ tubaa jàppin woo xam ne nii dañoo xam ne sëñ tubaa ko war a jàpp ndax jàpp sëñ tubaa suñ njëriñ la du njariñam sëñ tubaa ni ko yàlla def def na ko ba pare sëñ tubaa cër bi ko suñ borom di jox jox na ko ba pare liggéey bi mu doon liggéey rasulullaahi salaatu wasalaam nangu nañ ko kon ñun suñ tawféex mooy jàpp ko rek bañ koo booleeg dara jàpp ko te ne bañ a bàyyi dara am na loolu nag ku ko def nit ñi nga xam am na nañ xel war nañoo xam ne yow am na loo yàlla defal te mooy sëñ Modou lii muy taxawal di ko taxawal fii fi nga xam ne fi la juddoo fii la fekk mbaax fii la ko baax fekk mu ñëw indi ko fii di fi sant sëñ Tuubaa di fi ñaanal sëriñam am na lu ko suñ borom defal te ku xawal bu Modou gisee xam ko xam ne pas-pas bu rafet la ko yàlla dénk te pas-pas bu rafet la lam ni mu mel ak sëñ Moussa tamit ku ne xam na ko mooy xam ne sëriñam yaakaaram teeg ëllëg gis ne ne bi ñu ko présenté sëriñ bi te jaar ci yéen nga xam ne yéen taalibe yi nekk xoolee sëñ Moussa koo jàpp te jàppantu ko wan ko na ko deretu sëñ Tuubaa nga foo ne man nga fa neyal fu ma nekk yow laa fa neyal taalibe yi Saalum dénk naa la lépp sooy wàcc ndigal bu ma tàggu taalibe yi itam bu leen sëriñ bi joxe ndigal bu leen ma tàggu bañ demee rek sëñ Asis mi ngi koy jëwin ya fa nekk mu ngi ci ngàñ ak ñoo ñoo ngi ne sëriñ Batouma ci lim leen ma mën a doon na ngeen fexe ba ndigalu sëriñ bi bu leen ci kenn na ngeen loolu lu leen bi di liggéey loolu rek na ngeen fexe ba liggéey ko liggéey bu rafet loolu nag am na fu mu yóbbu sëriñ bi nax ku ne xam ne ne jamono fi ñu toll nii tembe koo jàpp te jàppee ko sëñ Tuubaa dalay jàpp te Serigne Rahmane ni mu jàppoon sëñ bi mooy sëñ Tuubaa rek a taxoon mu jàpp ko kon ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem te wàccal ñu xéewalam sëriñ bi sant na bu baax a baax a baax sant na Modou Guissé bu baax a baax sant jëwriñ yi fi nekk yëpp sant na tamit mag taalibe yëpp bis bii ngeen defal seen mi ngi ñaan yàlla doon ay ati at ci barke ngi leen di ñaan tamit yàlla yokk leen saa yi doon ba bàtti nan ndax li ko def mooy yoon wi ngeen tegu fii la mag ñi teg mooy jàpp sëñ Tuubaa bañ koo booleeg dara di ko sellal nag di ko rafetal ba képp koo xam ne nii parce que ñàkkul fii nga xam ne lañ fi dëkk am ñàkkul ñu fi dëkkal ñoo xam ne dañoo naan ñii fuñ jëm ban programme lañ yor an ñii ci loolu lañ dox ñu fexe ba rikk waay won leen programme boo xam ne ni lépp dara du ci génn sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moom neex na àndal neex na présenté koo ko présenté lu mu gàtt gàtt xel dina ko jàpp dina ko bëgg ndax sëñ Tuubaa daa bëggu ku ko ku ko bañ rek da koy bañ sa bañu cooba bopp waaye ku ko bëgg nag bëgg-bëggul sa di bëgg kon yéen ñi nga xam ne ni yéen la ñuy ñun ku mën a doon fa nga nekk di liggéey yëgale Sëñ Tuubaa nañ ci góorgóorlu suñ këm di lay kattan gën a rafetaat pas-pas loolu mooy mooy moo moo ñuy yokk moo ñuy defaral sëriñ bi nag ñoo ngi ko ñaanal fan gudd ak wér ndax moom jumtukaayu Sëñ Tuubaa la lépp lu ñuy tudd tudd Sëñ Tuubaa ko rek moo ko ci war te nag du ci jug mukk bis da doon wax naan cérémonie bi cérémonie bi doo wax mu tey 6 heures la commencé di woote bisu Modou Guissé bi jëm Modou Guissé bi ngir lan ndax fi fi ngeen tegu ngir lan mooy Modou Guissé yitte ji mu ko jox kon yàlla na yàlla defar lépp yàlla na yàlla defar bis bi euh, ci doole maam Cheikh Ibrahima fal yokk leen ba nga xam ne boo liggéey lu ngeen ciy def mu gën a yaatu gën a gën a gën gën a baax ni ko sëñ Mountakha di waxee gën a baax gën a gën te nañ ci njortu bu baax moom tamit yàlla mañ ko fan gudd wànd ak wér at xéewali yaatu ba mu yàgg a liggéeyal sëñ Touba ba képp kuy liggéeyal sëñ Touba lam lam la yéene ci liggéey sëñ Tuubaa fay gi nga gën ko mu gën a baawaan ci yow mais sant na ñëpp gërëm na ñëpp Modou nag moom wax dëgg yàlla comme ni ko magam ju baax ji waxee léegi rek moom boo baaxee mbokkum ñëpp nga soo melee ni neex ñëpp tamit mbokkum ñëpp ngay doon te moom ni mu mel wax dëgg yàlla ñu rafet la sëriñ bi rafet na ko baax am nag taalibe te wax dëgg yàlla ku bëgg Seex Ibra la ku bëgg sëñ Tuubaa la te ko rafetal jëmale ci bokk taalibe bi kon Modou sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaan yàlla yal na yàlla def mag te lépp lu ñu séddale ci yoonu murid yàlla bu la ci kenn ëppale yow ak sa bokk yi nga bokkal sëriñ bokk ak lépp ndax bokk sëñ Tuubaa mooy ak bokk bokk gi gën a rafet mooy bokk sëñ Tuubaa te ni ngeen bokkee sëñ Tuubaa lépp rafet am na ñoon nag kuñ gunge nga ñime waaw am na ñoo xam ne nii kuñ gunge ñime Tuuba mii dama ko wax ne ko man dama laa bëggal sama bopp itam ma bëggal sama bopp nit bu ko magee tamit gënu ko rafet xel te jàmbaar la ci yoonu murid jàmbaar la ci Kawlax gi kuy sagoo Kawlax la waaye kuy Kawlax di bàyyi xel la nit mën na ko mag lool mais ku rafet xelaat la ku rafet tamit xel la kon Touba yàlla na yàlla dolli sa jàmm te may la li nga bëgg lépp ci yoonu murit may la li nga bëgg tamit ci Kaolack gi yëpp lépp loo xam nit ku baax da am ci dëkk bi yàlla na ngeen ko am ci barki Sëñ Touba mais sëñ bi daal mi ngi sant bu baax mi ngi gërëm daa xat sax jamono xat métti mais sëriñ bi heure bi war na ko fekk mu ñëw fi yëpp toogandoo ak yéen nekkandoo ak yéen ni mu ko doon xalaatee yëpp nag de amee na noonu ndax tawfeexu sëriñ bi da ngeen bëggoon te am na li ngeen bëggoon sëriñ bi defal ko lépp ngi ci lépp ngi ci ndax nit mën naa yendoo di di takki la rajo di kii te doo fa wàcce benn baytu alxuraan wala doo fa wàcce benn benn baytu xasida kon bu ngeen fi wàccee lim bi ngeen fi wàccee loolu liggéey bu yàlla nangu la at journée ni mu xatee ngeen def fi bu liggéey bu toll noonu kon yàlla na yàlla fayleen leen Sëriñ Rahmane Fall ci laa la yàlla na yàlla dolli yërmande ci moom yàlla na suuf gën a oyof ci kawam yàlla na yërmandeem gën a baawaan ci njaboot gi yëpp waaye kóllëre gi sëriñ bi fasanteeg moom du feccee ko mukk sëñ bay sëñ góora du ko mukk lan ñu wax Kaolack dégg nañ ko lan ñu wax Dakar dégg nañ ko te li ko sëriñ bi jàppee woon xam ne tamit moom ni mu ko jàppee woon ndax loolu yeesaan na ci ñun mooy xam ne du dugg mukk lu sëriñ bi yëgul loolu nag ni mu mel mooy ni mu jàppee woon sëñ Tuubaa dafa jàpp sëñ Tuubaa te boole kook dara moo tax bi ngeen doxee ba bëre woon ko seriñ bi mu ne ko yaay sama sëñ fii ci Saalum dama lay jàpp taaliba yaa ngi nungu dénk naa leen duñ buñ looy def nañ ci nañ ci njëkk nañ ci mujj kon yéen tamit loolu ndigal seen ndigal la waaw kon nag yàlla na defal leen li ngeen bëgg yëpp ñoo ngi daane foofu suñu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ góor sëñ bay ñoo ngi sant baax baax baax yàlla na yàlla defal leen jàmm jërëjëf tëdd ca barzak yor Seydina Muhammad xéewal yi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra di ko fekk ba faaw rek ba ban koy fekkee njàmbaar bawunu fi ay pexe bawunu fi ndax moom fa sëñ bi bëggoon ku fa ne fa la féete woon rek kon nag yàlla na ko suñ borom borom borom fayal mm. dëgg yàlla dañ leen di sagoo mm. Euh, ndax ànd gu ngeen ànd ak moom te ànd ci sëñ Tuubaa rek tax kon nag loola yàlla na dëddu na waaye lislaam dëdduwul sëñ tubaa dëdduwul Cheikh Ibra dëdduwul moom it dëdduwul ndax ci biir ñooña la nekk ñoom ci biir ñooña la nekk wax dëgg yàlla sëñ Modou fii fii moo koy muy wootee liggéey bi te ngeen ànd ko ak moom fi la fi la fi la fekk baax fi la màggee su fi woote woon leneen ni tamit kenn mënu ci dara mm. waaye sant yàlla ba mu fi woote nag bisu Cheikh Ibra mm. kon loola ndimbal la Cheikh nag ku ku mu bëgg la liggéeyloo du la liggéeyloo nag sant yàlla ba mu la boolee ci ñi nga xam ne wala bi mu ñu boolee ci ñi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal hmm. te nga féetee fii taxawaloon ko bis bii mu bis boo xam ne wax dëgg fa yàlla alhamdulilahi rabbil alamina eh, juddu bi ndawoon na waaye màgg gi am na solo lool foo bëgg mu yegg yàlla na fa yegg eh, jàngoro ji nga xam ne itamit moo tàbbi ci réew mi hmm. eh, yàlla na ko fi suñ borom ba yemale hmm. ba yitte yëpp mën a wéyaat ni nga xamee ne ragal gi nit ñi ragal lépp suñ borom daal di koy tebbi waaye nit ñi nañ bàyyi xel rek ne an nafa wa duru min arrahmaani laysa min albidaani wa sudaani suñ tubaa nee na njariñ ak lor ci loxol yàlla rek la ne eh, nekkul ci loxol nit ku weex nekkul ci loxol nit ku ñuul te alquran day wax ne qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkal al muminuun alquran nee na lu ñu mën a dal rek daa fekk na daa fekk mu teg si mu neex suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. mu nekk ci coobare yàlla mm-hmm. kon nag yàlla nañ ci suñu borom musal mm-hmm. nañ ci suñu borom musal te yemale ko fii rek baaxu sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra jërëjëf sëñ Modou sant nañ baax sëñ Mbaye ak ñoom ñëpp kenn ku nekk ci yéen mën nañ laa tudd wax sa pas-pas wax sa kóllëre ak sëriñ bi ak fi nga teg sëriñ bi waaye nag kàddu yi jot a jib moom ëmb na yëpp ëmb na yëpp kàddu yi sëñ Mbaye ëmb na kàddu yi